ngeen bëggee bokk ci bile émission jokkoo ak Nicolas wala Maodo fay mën ngeen yónnee seen message wala woote ci numéro whatsapp bile di 77 959 51 53 77 959 51 53 asalaamaaleykum wa rahmatullah El Hadj maa ngi lay siyaar siyaar Nicolas maa bu baax a baax di leen ñaanal jàmm di leen balu àq leen bal àq El Hadj damay laaj ñii ñuy wooyee borom xel yu naqaree te olof naa leen dof man dama gis ne ay nit la ñu daal te dañ leen a war a suturaal te man damay def ci digg Ndakaaru ci rond point Sandaga ay ñu xelam naqari yoo xam ne dañuy def yaramu neen mel ni leen seen yaay jure woon daal mu daw yaram lool ak ay sest yu neexul wax suñu autorités yi am nañu ndax ñoom yàlla dina leen ko laaj wala dina leen ko laaj ndax mbir moom man jaaxal na ma jàpp naa ne ñoo leen war a sàmm mbir yu doyo doyo doyo waar ci li waroon xel yu naqare gis ci digg Ndakaaru ci Sandaga wala nga de l'indépendance daal mbir mu mooy yéem la daal bëgg naa nga def ci waxtaan asalaamaaleykum waaleykum salaam ñu ngi koy sant bu baax a baax di gërëm mbokk mi oustaz dégg nga la ma wax euh, par rapport ak ñi seen xel wàññeeku ak ne nu leen gisee yenn saay euh, ci mbedd bi nanu melokaan ba nuy àndal daal waaw koo ci gis nag muy dem ci kër nit la jógee ku la ci romb di dem rek xamal ay bokkam ñu ci ëpp ay nit lañ yoo xam ni njaay yoo xam ni ñu ngi ànd ak seen xel. Mhm. gouvernement bi nag defe naa ne loolu amoon nañ ci euh, plan euh, ak ñoom euh, John moom nga xam ne moom mooy protéger ñi nga xamee ne seen xel dafa wàññeeku. plan yi bëri nañ waaw déet ci leen dëkk Sénégal kay li mu ci mel noonu. plan plan plan. waaw waaw du jeex. léegi nag ki nga xam ne xel mi dafa neexul <clears throat> wax dëgg yàlla. am na ministre bu ñu dénk wala bokk ay fànn yu ci gouvernement bi yoo xam ni nit ñi ñi leen di protéger ci lañu bokk ah léegi nag ah ndax gouvernement bi moom ci boppam moo leen di ramasser am fu mu leen di yóbbu waaw wala déet wala ndax daf leen fiy jëlee am fu mu leen di def am nañ àq ci biir réew mi donte sax seeni xel dafa wul dafa xaw a doy waar hmm. waaye nag loolu day fekk nit ñi am yëg-yëg ndax xam nga am réew bu ñu wàccee yoon wa le yëg-yëg yi day daal di wàññeeku te am na koo xam ne kii ku ko gis ni ko mbokk mi waxee léegi da ko war a mën a yërëm waaye nag ah da ci am loo xam ne lii kaddu gi sensibilisé rek nga man mhm. verbalement am na nag actes yi nag ñu koy posé mooy état bi. Mm. état bi nag kon loolu ñu ko déggee. Mm. li ñu war a mooy ñu jàppale leen. Mm. parce que ñiy dox ñëpp sax am na ci ñoo xam ne xëy na dañoo feebar rek waaye taxu leen a. nekk boo nee boo boo sas nga baal ma boo nee état sax dafay mel ni lu ñu tënk autorité yi de façon générale. généralement euh, parce que am na euh, autorité gouvernementale wante it euh, am na autorité yoo xam ne sur le plan local maanaam sama xel dem ci mair yeeg gox yeeg goxaat yi ñoom itam. am na liggéey boo xam ne dañu koo war a def. wante ñoom itam il faut ñu ànd ak fit waaye mënoo nekk maire benn gox tamit gis ne situation bi nii euh, dañ ko fi war a kii pour le bien de tout le monde. Mhm. mais amoo fi tout def ko mais aussi mooy loolu ñu dem ci ñaareel bi ca WhatsApp. Mhm. aywa asalaamaaleykum. Sass Maodo maa ngi lay ziar Nicolas maa ngi lay ziar rafetlu seen émission. waaw dama leen dégg ngeen di wax lu am solo di soññ les ministres la dégg naa Maodo di soññ bu baax euh, ministre bi affaire mbay mi avant ministre de la femme mais vraiment maa ngi leen si encouragé mais bëggoon naa tamit ngeen boolewaat si ministre ministre des transports temps de Wade ministère des transports bu nawet daan jub si dañ daan lancer opération zéro waaw maanaam mbedd ndakaar yëpp fépp am pax da nga daan gis oto yi guddi dañ daan ñëw def ko goudronné ko ba mu nice parce que tamit xama nawet bi ndox yi bu taajoo si kaw tëli ak pax yi oto yëpp ay yàqu mais booba léegi dégguñu fenn fu ministère des transports ni waa Ageroute gisuñu fenn fu ñu leen gisee si mbedd tëli yi xam nga ñuy fattaaturu yi pour di def euh, waajal nawet bi quoi comme onance ni koy defee bëggoon naa daal franchement ngeen ni ñuy soñal suñu ministre yi quoi ñu jóg dem liggéey bàyyi bureau yeeg climatiseur yeeg yooyu ok merci wasalaam jëf mbokk mi loolu de leer na euh, jamono ji ñu nee de ak euh, nawet bi moom ah bëri na ci ay tali yoo xam ne pax-pax yeeg turu turu yeeg ñi yor oto daal sonn nañ lool ñun fi nu nekk nii rek cité kër góor gi gii boo fi jaaree am na yenn koñ yoo xam ne c'est c'est compliqué. non c'est très compliqué même même même même transport bii mbokk mi di wax nii. Hmm. lu ko gën a garaaw ci Sénégal amut. daanaka li gën a yàqu ci àddina bi transport ca la bokk. Hmm. parce que trans boo génnoon léegi ci mbedd bi da nga fukki nit ak juróom yoo xam ne dañoo taxaw di xaar. Hmm. am ñaar fukk yoo xam ne amuñu da ngay gis ñoom seen tànk la ñu mujj jël di dem raj raj loo bi bi kenn organisé wu ko transport bi moom kenn comprendre kenn xamul lu muy nuru te at mu nekk noonu lay gën a demee. at mu nekk boo tax woon fii tey bu sa loxo jotul sa gannaaw ngay jël taxi. nga ne naa xaar oto sangam wala njaganjaay sangam wala nangam wala wala wala. Mm-hmm. boo def nag mën nga faa yenn. Mm. te foo jëm mën la ca de foo jëmati mu nekkaat embouteillage. Mm. waaw embouteillage bu ca taw fekk si waatee fu ñu jëm. Mm. waa loolu ku koy def ku dul autorité gouvernementale yi nekk fii. embouteillage waaw. taw. waaw tali baaxul. waaw tali yëpp def ay kàmb. waaw léegi yow nga war a dox. Uh, dawal sa oto ci yooyee kàmb. waaw uh, sa oto man cee loru. waaw ndox ma ah, ah, ah. léegi nag nga amaat yeneen i problème difficulté de de, jamono boo xam ne léegi yaa ngi doon gérer sa santé di gérer liggéey bi xaalis am kërëb kërëb léegi nag ah, ah, am nga problème oto tamit mu doon yeneen i dépense yoo yoo waajalul embouteillage bu la neexoon nga ne kañ lay jeex ci Sénégal du mm. lay jaaxal mm. li ñuy bind lépp nañ defar fii nañ yàkkali fii dañ def fee oto yi ñëw daanuwaat ci suñu kaw mm. oto yi amoon ay jamono ñu ne woon dañ koy contrôler léegi oto yi nga xam nii lañu mel duñ fi daw nangam bërki démb gouverneur def na lu am solo façon oto bu ne waaw ne léegi am na façon oto bu ne waaw am na heure yoo ah. xam ne duñ daw mais gis nga Ah. gis nga à euh, mooy suivi ba ngay wax sànq da ngay jël benn kii nii def sa annonce rek euh, mu nekk annonce noonu rek mais après aucun suivi da ne tali dañ koy defar euh, tali même bu embouteillage amee ok loolu tamit embouteillage ak ak ak réew muy dox ñoo ànd. bëri na ci àdduna bi. wante ana ana tali yu baax yi. léegi tali boo ci gis rek. yi ci baax fii Ndakaaru <laughs> da leen compter. déedéet moom kay tali baaraam nga ay ay ay baaraam la preuve bi mu tawee am na yu bari yu dagg. Ah, gis nga. marché te liy jëmoon caare yi carrière yi defoon eh, foofu yëpp promoville mais autorité yi ñuy tudd à chaque fois te situation boo jël rek à chaque fois da naan mais ñii ana ñii war a liggéey lii c'est c'est incroyable am na fi li ñu xawma promoville la xawma dëkk bu nañu gas ko def nangam ba mu tawee ndaw ndax ma dafaa jaar bàbbi lépp terre bii ñuy wax terre bii daanaka moom moo moo yokk inondation yi foofu moom kay twarkal la lépp doy na waat yàlla nañu ñu dem ni ko Oustaz Maodo maa leen di ziar leen jox seen wàccuwaay di leen béggee man la seen soppee Kumba tey ci suba bi nii bi ñuy xëy liggéeyi Oustaz Maodo waxal ak état bi wala ñu la jege bis Dakar dem dikk yi yéen wax ni dafa paan xaw ma ñaata bis dañ ko defar teg ko ci tali bi ndax ñu ñu ñu koy jël di dem liggéeyi duñ am problème à chaque fois dangay taxaw ci arrêt bis dafa une heure de temps di xaar bis bis bi mu ñëwee fees seen norma parce que léegi nombre mais léegi comme que léegi biis yi doyul léegi tun defal biis yooyu noonu teg ko ci tali bi nan teg biis yi ci tali bi ngir laay waru suuli ñun ñuy liggéey sonn nan te bëri naa ci ay moroom bëri naa ci ay moroom man chaque jour sama ne ma dinaa la dàq ndax tardé ngir yàlla nan dimbali ci dem beeg dikk bi transport bi ngir yàlla nan ko réglé ñun ñi amul oto ñu ñi xëy di buuxante sonn nañ ci oto yi sonn nañ ci lii ba kañ dëkk bi kañ lay réglé ba kañ yàlla wax leen ci ba système bi système bi ba kañ. Hmm? système bi système bi doy na war système bi ñu dëkkee. Uh, soxna si gannaaw bi ñu ko jaajëfale bu baax a baax nee na naka lañ ko nar a dundee nag ba kañ. ah nee na patron léeg-léeg mu ne ko da ngay tardé rek. mais c'est très compliqué pour ces gens-là qui ces usagers qui doivent utiliser ces bus là. waaw léegi lan moo tax banlieue bi mu banlieue mënu ñoom tali yu baax. du wax nañ ko fi léegi. c'est c'est compliqué loolu te te ñoom ils ont des programmes dès laa wax de des programmes parce que da nga ne da wax ñun la programme tel war nañoo defar nangam nangam bu nangam ba noppi non seulement lent ba noppi itam boo deful nangam ku guddul fan doo ko fi fekk am na ci yoo xam ni tamit bu ñu ko defaree tey bu ëllëgee mu yàqu bari na lu ñu defaroon loo xam ni taw ñetti fan yi defaraat yàqaat na ci lu baree baree bari. doy na si wax ne. te na gis nga. Eh, li war leen di romb ci arrêt bus yi da naan mais mais c'est pas possible. mais c'est parce que quand même parce que ñu nekk ci réew boo xam ne da ngeen di encourager jeunes yi nee leen liggéeyi leen. léegi jeunes yi bu ñu bëggee liggéey ngeen indi leen dix mille complications ngeen décourager leen. moo tax man la ma ne la doo xam ba xam gars yi dañuy làmbatu. xamoo dañoo def ay slogan rek bàyyi xamoo leen parce que dafa am loo xam ne dafa war am suivi ba noppi am détermination. topp ko bu baax a baax am na ci ministère yoo xam ni Nicolas communiqué sax duñ ko def Hmm. waaw am na ci ministère doo leen dégg sax ci dara. Hmm. faf ña nga tëru seen ay bureau hmm. xëy na da nga leen dégg ci leen. waaw ah, da dégg jékki rek dégg tel ministère nga ne ah ok kon ministère bi. na waaw waaw waaw mais doo leen dégg ñu communiquer doo leen dégg ñu ku ci xas ba falu toog. nga fa ngay toog sax mais ñu lay gis sax nga nekk sur le terrain sax di doxal la ngay la lañ la dénk. neewoon naa la fi jamono ma ne la ministre sangam ak ministre sangam waratuñoo toog ci ay bureau ba loola passé am na ministère yoo xam ne tey jii waratuñoo yore bureau. ba nawet bi jeex képp koo xam ne ki yow leen dénk wàllu ndox mi inondation mm. Mm. dénk la wàllu infrastructure yi mm. bu nawetee waratu am bureau déedéet war a nekk sur le terrain yaa sa équipe mm-hmm. vingt quatre sur vingt quatre nit ñi di la gis nga ànd ak staff de communication ak ñu lay filmeel ñu xam ne yaa ngi liggéey nga ne ca waar wa ne mais justement mais affaire bi ay papier defaru ko parce que sénégalais yi dañuy gën a yokku xam nga booy gouverner te doo mën a prévoir prévoir par exemple li war sénégal yi ñoom di bëgg a dee fii nu toll nii. Hmm. mais xoolal jeunesse bi am na fi benn kilifa boo xam ne bi ci kilifa yi jiite réew mi la woon. Hmm. dañu woon un million d' def par an. Hmm. est-ce que loolu c'est ça c'est utopique doy na waar loolee lépp danañ ko àggali bu ëllëgee mais en tout cas li euh, soxna si mujjee euh, nee na euh, jàppale leen ñu dimbali leen yàlla da nga dégg cri du ci ci boppam li muy dund ñu bëree bëree bëri ni moom di ko dund saa suñu xëyee war a xëy liggéeyi ñu ami bus yoo xam ne dañu leen di tardeel du ñu agsi heure wala dañu naan du ma jaar fii wala à chaque fois muy am complication kon kilifa yi nañ ci bàyyi xel waa Dakar dem dégg ngeen boobee cri du cœur nga xam ne jeunesse bi ñu ngi leen koy lancé Euh, oustaz Maodo maa ngi dellu di la sant di la gërëm. maa ngi lay gërëm bu baax a baax.